asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo baaxoo di topp seen émission bii di Touba ma yónni mooy am samdi bu jot seen bokk taalibe Fallou Galass Sylla di leen ko defal ci barab yu wuute ci Touba ak mbedd yu wuute ci Touba lépp jëm ci ay jafe-jafe yoo xam ne Touba mi ngi koy dund. mbokk yi tey la samedi yemoo ak le maa ngi ci barab boo xam ne barab la boo xam ne. kilifay Touba yëpp daanañ fi ñëw mu ne ci digg marché Ocass di barab boo xam ne bu Touba soxla la fii mooy fan fii mooy ancien banque CBAO bi ne ci biir marché Ocass mbokk yi xoolal bi espace xoolal barax bi xoolal ndox mi xoolal barab bi ni mu yàqoo te ne ci digg marché Ocass ndax li wóor na ndax mën nañoo waat ne luy lore ne wut ci biir wala mi ngi ci ndax lii ñi ngi koy saytu. ba xam am nay jafe-jafe wala amuti jafe-jafe moo ne nangi mi junni nit ñooy nekk marché Ocass de waaye fii de buy luy lore nekkee bu génnee mara day taal waaye fii de tubaa soxla na ko de bokk yi sapeur pompier waxtu wu ne tubaa di nekk ci danse surtout marché Ocass waaye amuñu foo xam ne fa lañ mën a toog nekk secours barab a ngi nii bu ko man de waaye taxul ñu jox ko ko bokk yi la neen mën na ko de bara bii mën na lu bari ancien banque la ci marché bi la bokk sëriñ bee ko waaye lan moo tee ñu defar ko ndax lii sëñ bi yëg na ko wala yëgu ko ndax lii dañ koy seetaan nii rek mu far fi jaare fuuti moo ne bu doon terrain boo xamante ne bii ku ko defar man cee am ab centre commercial ba tey defar nañ ko bu yàgg waaye daal bu dee sëñ bee ko moom moom dan naan nañ bàyyi mu yàqu rek waaye kum doonoon sa doo ko seetaan de bokk yi lii ba kañ Touba ma ko yónni de du samay wax waxi Touba la fii ma nekk de ci biir marché Ocass la nekk ancien banque bi moom ñëpp xam nañ ko kilifa yëpp fii leen daa denc seen xaalis bi banque baa ngi ni gis nga tabax yi ni mu yàqoo gis nga ndox mi ni mu <coughs> ndax ñi ngi ciy jéem dara wala jéemuñu ko ci boo xoolee trottoir bi ni mu génne xam ne mënees na koo defar ndax trottoir bi ndox naanatu ko loolu mooy tegtale ne mën nañ koo defar lan moo te ñu defar ko sëñ bi da koo yëgut wala yëg na ko ñan ñoo ko war a defar kan moo ko war a wax sëñ bi ab laañ la seen bokk taalibe Fallou Galass Syll Touba moo ko yónni woon te jii ci gaaw bi. yemoo ak le 20 janvier 2024. ñuy jaajëfal bu baax a baax nag bokk yi nga xam ne ñu ngi topp. rubrique bii di Touba ma yónni di ko bàyyi xel ci site internet yi di ko bàyyi xel ci Facebook bi di ko bàyyi xel ci groupe WhatsApp yi waaye di ko bàyyi xel ci rajo yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla jox ñu ko mën a defar tubaa wala jox ñu boog ku mën a defar réew mi te boole ci tubaa mbokk yi Touba li fi nekk ci a yàqu-yàqu bari na mbedd yi yàqu na ñu ne nabbee kër yi yàqu na ñu nab bee ndox manqué na ndoxum naan. ñu ne jafe-jafe la moo ne nab baa ngi jóg de waaye ne ndoxum naan mi day daw boo gasee forage doo am ndox te boo taxawee ci biti ndox mi naan war na sa kër ab laaj la ba tey de mbokk yi Touba rek moo ma ko yónni maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll àndoon ak yéen tey jii ci samedi. yemoo ak le 20 janvier 2024. Moudou Mamoun Ba moo nekkoon ci wàllu caméra bi ñu leen di sant di leen gërëm di ñaanal sëñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko yàlla gën a yàggal gën a doole ak wéram wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.